social lañ ci jublu euh, social euh, taxawu Kër Massar def social ñu baax ñu nekk Kër Massar lépp lu baax ci Kër Massar ñu boole leen suñu bopp taxawu leen lépp lu baax ci Kër Massar taxawu bi tey jii dem nañ ci euh, hôpital yi dem nañ ci hôpital Matamba dem nañ hôpital Mame Diop dem nañ jumaa yi dem nañ dem nañ Alaaji Paate dem nañ ci daara yi jox ko fa ay ay moustiquaire jox ko fa ay gel ay masque ay saabu xam nga ay détergent dimbalee gars yi objectif bu mouvement mooy Kër Massar ca lépp lu nekk Kër Masar nekk lu baax rek ñun ñoo ngi ci lépp lu nekk Kër Masar nekk lu baax rek ñun ñoo ngi ci lépp lu nekk Kër Masar nekk lu baax rek ñun ci baax bi tey mooy suñu première sortie mais kilifa yi topp suñu ginnaaw ak kilifa yi nekk suñu ginnaaw euh, mouvement bi jar baax a baax soo nawetu daaw ak nawetu ren ku ko fii nga taxaw nii muy wax na ko sànq daaw boo fi taxawee dox bi ci sa ndigg la lay tey jii euh, ñuy gën président Macky Sall bu baax a baax baax a baax ak Omar Gueye président Macky Sall li mu def ci Kër Massar amul benn président bu ko mës a def ci Kër Massar. waaw car par rapport ak Kër Massar situation ci yi mooy li may wax rek mooy daaw fii ci heure tax boo fi taxawee mu Daaru Rahman boo fi mosoon a taxaw ndox mi sa ndigg la lay toog mais dina sant baax président Macky Sall. def na ci lu mu ci wax dëgg dëgg dëgg dëgg ndax projet bi projet bi pare na des na deuxième mais tey jii nii nii fii nii nii nii canal bi mi ngi fii dugg kër canal bi si tey jii nii canal bi fi jaar récupéré na ndox yi nekk ci tey jii nii dañaa def en attendant pour ndox yi dem mais fii trois ans la ndox yi di jeex kër Massar kon ñun amuñu droit ñu ko kenn amuñu droit sànni kenn te xam ne dañu sant yàlla bu baax xam ne président Macky Sall lam ñu waxoon jaaree ko ci Omar Gueye Omar Gueye mi ngi koy taxaw bu baax a baax a baax Omar Gueye def na li ci war mi ngi mel Omar Gueye Kër Massar la def dafa mel Omar Gueye Kër Massar la ndax bu dégg bëccëg ñu koy gis fii nii di sant kilifa yu baax kilifa yu baax a baax tout député Moussa Mbengue moom tamit taxaw na ci ndax chaque jour joxuñu ko ay moyens mais mi ngi ci ndox mi mi ngi xataraay guddi bëccëg ci ndox waa ndaw Kër Massar yi tey suñu rêve tey mën naa ne tey suñu rêve a soxla tey jii nii euh, tey jii ngi commencé leer ndaxte tey ba ñu demee ba Moussa Mengue xeet département tey bañu ab département gëm nañ ne département day ànd ak yenn infrastructure yeneen ak yeneen stade stade football day ànd ak stade football day ànd ak préfecture day ànd ak yenn yenn yenn saka sapeur xam nga yeneen ak yeneen yi nga xam dañ koy soxla tey préfet yi andil nañ ko te buñ mosoon soxla préfet préfet bi fii la nekkoon kër Aldo ji la fa préfet mu soxla préfet dañuy dem ba Pikine di ko wëri tey jii dund ñu nag préfet bi ñooy ko dund te loolu avantage ci ñun vraiment loolu moom moo ci nekk état moom wax dëgg président Macky Sall ñun Kër Massar ñun Kër Massar li dugg ci nguuru nguuru Macky Sall ci keur Massar ñun da wax dëgg yàlla bu ñu sañu bu ñu sañu ñu président Macky Sall mu dem ba ca karam parce que li ñu ci nguuram mu jaaree ko ci honorable député moussa Mbengue non non non non ñun amuñu fayam. Euh, l'objectif du mouvement c'est comme son nom l'indique hein, Kër Massar la dëkk donc euh, c'est pour vraiment euh, essayer de, moderniser notre Kermassar, essayer de développer notre Kermassar, mais surtout aussi conscientiser euh, la jeunesse que, qui, la majeure partie, vraiment euh, tombe à chaque fois dans, l'oubli et essayer à chaque fois de ne, pas, de ne pas montrer le vrai Kermassar, le vrai visage de Kermassar. Parce que si on dit que Kermassar n'est pas, pas encore développé, donc je peux dire que c'est des sottises. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure euh, Pape là où on se trouve en ce moment, à l'heure actuelle euh, de l'année dernière, c'était impossible. On ne pouvait pas se tenir si debout et faire cette interview. Donc on peut dès à présent noter des changements. Mais il faut aussi préciser que le travail n'est pas encore terminé, parce qu'ils sont encore sur des travaux, donc on peut encore espérer que d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, on pourra encore voir d'autres euh, améliorations. Voilà, c'est vraiment développement administratif et économique. Parce que si euh, on obtient la, construction de, ces nouvelles infrastructures, c'est nos frères, c'est nos oncles qui vont en bénéficier. Parce que si on, construit de, nouveaux sacs, on, aura des gardiens, il y en aura qui vont en bénéficier, des tribunaux vraiment donc, euh, des préfectures. Donc euh, on peut espérer des, développements là-dessus. Donc euh, les actions, comme, on l'a dit, hein, on l'a fait, donc on a essayé de, collecter pas mal de, dons comme des, masques, des gels, des, des, moustiquaires et tout qu'on a distribué dans, les districts sanitaires, les, les hôpitaux. mais aussi dans les, dans les mosquées. Vraiment, pour les mosquées aussi, on n'en a pas encore fini parce qu'on va distribuer dans les, dans les familles qui en ont besoin. xamante ni moom tamit defe naa ne ku ñu ràññee la fii ci gox bi muy maman Néné Sow maman dañ lay daal di nuyu di la ziar bu baax di la laaj rek lan moo nekkoon euh, sa teewaay tey ci bis bi ak sa waa groupe bi nga xamante ni mooy groupe na bi lan moo nekkoon seen teewaay tey fii. Mm, asalaamaaleykum waa yoonu ndam TV waa yoonu ndam TV mm-hmm. maa ngi leen nuyu ku nekk turam ak santam. Mm-hmm. sama teewaay fii mooy jàppale jeunes yi mhm. nekk nañu jeunes yi am ambition mhm. jeunes yi nga xamante ne yu bëgg seen réew lañu mhm. ndax xam nga ne mu la fekk ngeen organiser woo ay mag ñu bàyyi seen activité yu ñëwa leen c'est fekk ne ñu nekk jeunes yoo xamante ne yu am ambition lañu ndax ñun fii Daaru Rahman maa ngi fi nekk en 2006 laa fi dëkk moom fi dëkkee tout le temps si ay ndox lañ daan xuus c'est la première fois ren ñu dox ni ñu nekk mois d'août te fekk xuus ñu ñëpp dañ daan génn ñu ñëpp dañ daan génn heure bi daan fekk ñun ñëpp toxu nañu ba si daaw moo su mujj mais ren ñuy sant yàlla di gërëm ministre bi. Mhm. bu ñu gërëmee président de la république ba pare ñoo ngi gërëm Omar Gueye. ndax chaque jour deux jours yu nekk trois jours yu nekk ñu ngi fiy ñëw. Mhm. bu ñu ba ma paree si Omar Gueye maa ngi gërëm tamit suñu honorable maire Moustapha Mbeng mhm. ndax ñun suñu groupe soppi na bi loon apolitique la ñu woon. heure bii daaw politique gu ma. waaw ba ma ko commencé ba ma ko yoree ba tey en 2005. musuma si dugal politique. dañ daan dem amoon suñuy partenaire muy sama doom yi fi ñoo jaxatee ak waa Auchan. ñoo sama partenaire Corité tabaski tout saa événement am ba si ouverture des nawet bi na indi ay matelas moustiquaire bot mais ni ma ko gisee honorable muy kuus su ndox bi de gauche à droite nelawatul lekkatul naan wa xeex ko indi président mu am vingt ndox bi dem si la ne kii jar naa jàppale si la ànd ak moom na ko ne dañu bëgg canalisation bi dugg fi moom tam mu xar si tànk tubayam indi ñu canal bi tey ñuy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di remercier suñu honorable maire Moustapha Mbeng di remercier tamit jeunes di ñaan tamit jàkk ji ale bi rek moo ñu desee mhm. daa rahman bu dul ancien canal bi rek ñun amuñu beneen problème ancien canal bi mooy suñu problème ak jàkk ji kooku moom bu ñu si Omar Gueye mënee dimba ndax maire munu lépp mhm. maire yoru affaire canalisation mais ministre Omar Gueye la ñuy interpellé mhm. si ancien canal bi mooy suñu problème mais bu dul loolu bu dee bu amé amee problème maire mi ngi ñun ku si am naqar maire taal otom ànduñu. Mhm. vraiment mi ngi jàppale bu baax a baax a baax. mais suñu problème mooy aller bi jëm si jàkk ji rek ñun mhm. daal rahman foofu rek mais sinon. Mhm. lépp ok lépp daal macha allah alhamdulilah rabi ali yéen tamit di leen remercier di remercier tamit jeunes yi mhm. ñu nekk jeunes yi am ambition mhm. nekk jeunes yi baax yoo xamante ne gëm seen bopp di gërëm tamit jaraaf mais mhm. Aldo Diop moom tamit ku baax la avant lii di am bu mësaana taw man mi daf ma daan jox may toggal sapeur pompier añ en 2010 kër gee laa dëkkoon boobu sama kër pareegul

mais dañuy jóg ci benn action sociale social bi ñu koy defee mooy dem si hôpital jàppale leen ay masque yi di seet ñu si kër yi day ndax ñu si bëri dañuy nawet ñu mooy bi bien façon ñu woo si morom yi seen yëpp ñu œuvré si social mooy loo xam ne daal ñëpp dañ ko social si sa ñu dem si daara yi dem si yi dem si gars yi ñëw ñu jàpp si bu baax a baax. vraiment bi c'est le mouvement des jeunes. Kër Massar laa dëkk ñu wane Kër Massar am na beneen gis-gis bu ñu war a wan ñeneen mooy jeune Kër Massar nekk saaga wala xeex wala xuloo wala tàmpone loolu am na jeune yu conscient yu fi nekk yoo xam ne bëgg nañ développement développement bi koy def mooy ay ndaw boole seen xam-xam boole seen doole pour ay quelques mag yu leen gunge ñu mën a avancer loolu laa mën a ñëw ñëw jox tey bi mooy dinañ def tuuru hôpitaux yi dinañ dem si jumaa yi dinañ dem si daara yi jàpp ne amuñu nag lu bëri mais li ñuy yàlla jot a may ak bon volonté yi nekk dëkk bi ak ñuy jot a jàppale dinañ ko partagé bi ñëpp mooy nit bu amee euh, lu muy dox wala lu muy wax bu amee télévision rek soo xee fu mu war a yegg télévision bi dafa fa yeggal imam nag ñoo ngi lay sant di gërëm ndax yow jàkka ji yaa fi ne yaa ngi imam Sow ak liggéey nit ñi ay nit nag bu ñu àndee bokk jàkk ji ñoo bokk pénc bi hmm. lii defal pénc bi nag mooy defal jàkk ji bu defal jàkk ji defal na nit bu ñu mënee julli dañoo set set gi ngeen indi xam ne dafa ñëw ci jamono ba xam ne dañ koo soxla mooy mbas mi daf fi nekk kenn ku ci ne xam ne mbas mi fu jógewul nit ñi duñ am jàmm donc nag yàlla na leen yàlla fay fay leen fay goo xam ne suuf suuf seen jor fay ko ñi nga xam ne ñëpp si amoon na yéene def ko tamoon nañu koo def def nag yàlla moo koy def yàlla dafa def ay ndaw taxaw ci ne euh, Kër Massar mooy suñu itte ah lii dee nag yàlla ko yàlla sotti tey doomu aadama nag bu farloo ci dama bëgg a dimbale ñëpp xam ne dañu itteewoo loolu que itteewoo loolu indi ko ci ñi ko itteewoo yàlla na leen fay ci maa ngi gërëm nag sama mbokki délégués yëpp ndax xëy ñeen tawat da leen jot mooy seen tànk dañoo xaw tawat ñeneen ñi feebar daf leen ndax loolu moo ko àddina ànd kenn kenn ku ci ne ñun na indi taw ndax masque da ngay protection maa ngi diggal nag yi nga xam ne indi ngeen ko fi nii kenn ku ci boo ci jotee ak koo ci jotul da ngeen proté ñu protégé wu ndax protégé moo ñu mën a dimbali ñoo ngi ñi ngeen xam ne ñoom ngeen leen di leen ziar ñu di tatagal di kontaan ci yéen da ngeen wax ni da ci bi noonu lu mu moom mooy mu mag Kër Massar laa dëkk yéen a ci yoon boo xam ni noonu la ko wolof di waxee mooy lan dëkk ci dëkk bi defar dëkk bu gën kon du nu mën di leen ci ñaanal yàlla yàlla jàppale leen ba ngeen egg à bon port beneen bi moom mooy da fëgg bunt boo xam ni kooku de lu ko neex mooy am moo tax fi ngeen ñëwee nii jumaa ji mënuñu def dara man imaam laa yàlla moo dogal imam ratib bi voyage ma nekk ak ñoom nekk fii yàlla defal jàmm bu mu ñibbisi waaye li leen di xamal waa jàkka jaa ngi fi délégué fi les notable tamit ñi ngi fi geste bi ngeen def nag bépp jullit sax yàlla dafa ko sant. maa ngi tudd Babacar Mbow. je suis technicien supérieur de santé chef de poste fii ci poste de santé madame Fatou Ba ñu faral di ko hôpital Malang bi. donc vraiment maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen gërëm di leen sant di gërëm association bi nga xam ne ñoom nee na ñu ngi tudd. Kër Massar laa def vraiment ci geste bu noble bi nga xam ne moom lañ def parce que vraiment ki lay defal lu tuuti bis boo amee lu bari dina la ko

pour respecter les mesures barrières vous avez vu à l'entrée am nañ fa benn laafamay boo xam ne on ne javel ak ndox moo ci nekk képp ku dugg ci poste bi di nga raxas sa loxo képp ku dugg aussi dinañu exiger masque donc service yëpp aussi kooku ko def dina am gel alcoolisé dina am aussi masque pour vraiment au moins ñu respecter les mesures barrières donc vraiment aussi ñu avons def vaccination bi ñu ngi dox bu baax a baax ñu profité sax ci occasion bi amal nit ñi population de Massar AstraZeneca bi nga xam ne dafa nekk naa def deuxième dose bi c'est déjà disponible au niveau des postes donc ñi ko jël woon ñëpp mën nañoo ñëw vacciné wu incha allah au niveau du poste de santé madame Ba nit ñi ñu ngi ñëw mais information bi jàll ni war a jàll donc ci gàttal daal vraiment ñun ñu ci xeex bi ku ñu ci fekk si tam dañ lay sant di la gërëm di ñaan yàlla yàlla musal ñu ci mbas mi musal suñu njaboot may ñu ci ndam vraiment ba ñu dem ba ñu bokk ak ñun euh, nekk jiite mouvement Kër Massar laa dëkk ñu ñëwoon tey Proxi comme Proxi Kër Massar la nekk tere Kër dëkk fii ci dëkk bi balaa ñaa génn di jéggi am yeneen tere ñu def ci suñu li ñuy wax ne mouvement bi lépp lu mën a xew rek euh, il faut que jëmmal ci suñu moo tax tey jii loolu dañuy yóbbu ci jàkka yi ci daara yi dimbali nit ñi ci hôpital yi. mais tey dañuy indi proxy ndaxte nag proxy télé la bi nga xamante ni ñu ngi dugg bari na bu bari na moo waral ay feebar bu fi fii ci Sotrac lañ dëkk loolu neexul moo waral tey ñu andi masque yi andi eh, ak frère am nekk ay wóolóor yu yàgg mu nekk yàgg yàgg moo tax tey ñu andi ko eh, ci turu mouvement Keur Massar laa dëkk. asalaamaaleykum. man maa ngi tudd Gaye Aliou Diop. maa ngi jël yu di wax ni dañu am ba ñëw fii ci proxy télé bi nga xam dafa ne ci Kër Massar li ci jiitu mooy ñu leen di félicité parce que ay ndaw moo fi nekk di daan seen doole di jottali askan bi ni mu ko bëggee di jël askan bi soxla ñu ko yóbbu fii ko war a yóbbu kon su loolu amee xale yi li ñu def nii dañ leen bëgg a wax ni autorité dañ ci ànd ak ñoom jàpp ci.

le diable de Kermassar, Maïnu, Madame Diamambay Sissé, la présidente des femmes de Kermassar Sud. Chinui, Monu, le président du mouvement Kermassar Ladek. Fabio parle venu toute ton équipe, tout ton staff, au nom de l'honorable député maire Moustapha Mbaye.

également, le président du mouvement UDL Chassam, avec son staff, marie réuni Vincent, au nom de notre partenaire Moussa D'aller aussi le mouvement cadet. Le mouvement cadet, à travers le président Moussa Junior, le souhaite de la communication Motine, le responsable moral Fali, à toute la délégation de la campagne maa ngi leen nuyu di leen sant Ndiogou un sage de Grand Midi n'est un grand responsable maa ngi ko nuyu toutes les femmes mën naa ne bu ma limee mën naa juum waaye den ma baal ma jukki ku Khalifa Fall nous également Yassida nous également euh, Ramatoulaye Sek, maa ngi koy nuyu nous aussi toute la délégation qui accompagne la présidente la présidente des femmes de Kermassa Sud madame Diama sissé Comme vous, nous, nuyoo je pense nous avons toute l'assistance. di gën a féetali nuyoo bi xam ne honorable député Moussa Mbengue tey bu may ñëw daf ma ko wax nee na boo eggee nag ma nuyul santal ma gërëmal ma le jaraaf Aldo Matar Diop le grand honorable député maire Moussa Mbaye ñu ngi lay sant di la gërëm ndax nag kenn rëccuwul li nga doonee jaraaf de Kër Massar yaa ngi ci activité yëpp yaa ngi ci jeunesse bi yaa ngi ci famille yaa ngi ci sage yaa ngi ci administration lépp loo xam ne Kër mi ngi ci rek yaa ngi ci waaye li ko ci gën a neex mooy da nga nekk ànd ceeg moom loolu moo tax moo tax ñu ma bu ma egsee naa jàllale kon mi ngi lay sant di gërëm Ah, la jeunesse loo rapporté vers Moussa Mbaye il est bon ngeen xam kan Moussa Mbaye 1996 2014 18 ans depuis municipal mu nekk ci mairie de Massar 2014 mu que le maire de Kër 2017 mu que le député maire de Kër 2017 mu que le président délégué de l'union parlementaire africaine 2017 mu nekk membre universalité 2017 mu n'êtes également l'homme a été toujours l'homme de confiance du président de la République Comme mooy Moustapha à l'état civil Moustapha 2006 bële mu porté la départementalisation de Kër Massar 2006 ba léegi muy wootee Kër Massar nekk département Moustapha Mbengue honorable député mi ngi leen di sant di leen gërëm di wax rek ñi ngi ñaan ñëpp ñëw déglu parce que tey li ñu fi c'est une activité hautement importante voilà ba tax donc

nous avons une journée de distribution de masques, de gel mais également les solo Faites du vous êtes des jeunes très bien éduqués mu le 23 janvier 2022 c'est une date historique nous sommes les élections locales élections locales

gars yi di daw ñun moom dañuy dox kon loolu dafa am solo ñu jàllale ko tey nag journée bu am solo la journée bu neex la ndax suba ba léegi ñu ngi contacter di coordonner ay li ngeen def ko def ngeen réunion technique tey doxal ngeen Kër Masar laa dëkk nag sànq ci biir wax ci am na lu benn jeune wax mais dinaa ko jubbanti ndax nee na Kër Masar laa dëkk nit yi ne dem ñëpp Kër Masar laa dëkk nag honorable député maire Moussa Mbengue moo ko moom Kër Masar laa na nga ñëw ànd ak honorable député maire Moussa Mbengue dootuñu nangu kenn ku jël suñu ko saax saaxi kooku day arrêté honorable moom moom Kër Masar laa dëkk ndax moom moom Kër Masar moo def Kër Masar département ci Kër Massar ba Kër Massar mën a egg fi mu bëgg mooy egg fa kon loolu dinaa ko wax les jeunes bu leen kenn këf bu leen kenn tiital ku ànd ak honorable a am fierté am fula am fayda def na fi loo xam ne kenn du ko def ci ci Kër Massar lim fi def kenn mënu ko def fii nu taxaw tey doy na firndeel ndax tey fii à pareil moment kenn daanu fi jaar Nous sargal c'est parce que liggéey boobu yëpp bu ne am c'est l'homme du projet 2 l'homme du projet 2 nag c'est l'honorable du premier Moussa Mbaye man je suis témoin oculaire ginnaaw bu remercier le président de la République son excellence monsieur Macky Sall ci jàppale gi mu nu remercier le ministre Omar Gueye le ministre des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires gërëm ba mu gërëmee Dina gërëm nag ki xam ne manqué wul benn projecteur honorable de Maîme Sambeng est présent di joxe xalaatam di joxe orientation di ande ak ci liggéey kon ko buñu démé tay ba projet di déroulé wu dans Kër massa, koku lañ wara a delloo ndax du maire buy nelaw du maire bu yaafuus maire bu bëgg askanam la di jappalé askanam kon dina ko leral fi fii Daaru Rahman ñu xam tay canal yi ngeen seen le député Maîme Moussa a fait un fort plaidoyer un plaidoyer important auprès du président de la République loolu ba loolu mën a nekk et je pense que la population est sensibilisée dans leen ba ñu moytu le les mouvements vous êtes des mouvements qui soutiennent leur Moussa mais vous devez être des mouvements également d'attaque vous devez être des mouvements d'attaque si je dis des mouvements d'attaque amatul nangu kenn koo xam de jël de propos des propos désobligeants di am foo ko jàll loolu nag dama bëgg la jeunesse c'est ko Moussa Mbaye honorable député sant na leen gërëm na leen te ñu Nous leen ni caravane de sensibilisation auprès des populations ne continuent et que le député maire sera toujours avec vous pour vous appuyer mi ngi leen di sant di leen gërëm les acteurs de Kermassar Nadek. Je dëkk remercier les jeunes vous avez été à la hauteur le président nous les centres de la de tous les mouvements présents 4D UDL Sopp Tigres. Tigresse

xool na fi defe naa comme ni ma leen ko waxee woon si njëlbeen bi rek ci suba ba léegi ñu ànd ak euh, mouvement bi nga xamante mouvement Kër Moussar la solo yi nga xamante ni joxe nañ ko ci suba dem nañ ay hôpitaux dem ci ay mosquée joxe fa ay loo yu am solo maintenant nag ñu terminé ak point de ko sànq rek bi ñu yëpp nag euh, dañ koy daal di bàyyi rek moom tamit mu nuyoog askan bi wax ñu moom tamit euh, malgré ci suba ba léegi liñ fi gis yëpp nga nekk jeune nekk acteur de développement ban yëg-yëg nga am ci loolu ak mbooloo mi fi teew tey. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla di di julli ci yonent bi ñu ngi sant sunu sunu sunu ñaari waajur mais mais vraiment wax dëgg yàlla tey moom mënu ma def dara lu kontaan mm-hmm. kontaan rek laay def. Nah li tax may konten mau lii la xam lii la bëgg ndaxte dama bës yàgg bëgg dimbale nit wala yëngatu ci développement vraiment ci loolu la yàgg bëgg ci la yàgg yëngatu moo tax fi mu ne nii kontaan trop waaw sun objectif mouvement bi mooy li ñuy wax rek social moo ko tax a jóg dimbalante képp koo gis mu am ordonnance nga taxawu ko képp ku nekk ci ay problème nga taxawu ko wutal ay jeunes liggéey jàppale jeunes yi am liggéey ndaxte ay jeunes lañu ay xale lañu li nekkoon nañ ci benn côté bi xamante ni presque lu ci bari dañu doon dimbale ba tey yàlla may benn côté kon nañ bàyyi waat xel ñooñu noonu nekkoon ci suuf yoon nañ bàyyi xel ñooñu loolu mooy objectif bi mouvement bi mhm. vraiment d'accord waaw Kër Massar tendance bi bari na ñi xëccoo Kër Massar barina mais avant tout li may wax mooy nit ñi nañ dem bindu ci mhm. nañ dem bindu ci ndax sax nit ku nekk li ko li mu bëgg mhm. ci élection locale yi la ko mën a la ko mën a fajee nit ñi nañ dem bindu ci beneen bi ci des mooy euh, Kër Massar dafa am ñu ko moom na soxna si Kër Massar. Mm-hmm. li booy naan fii ñoo ko moom. Mm-hmm. ñun fii ñoo ko moom. muy ñan ñooñu. muy ñun waa Kër Moustapha Mbengue ñun ñoom moom Kër Massar. Mm-hmm. ndaxte fii lañ dëkk waa Léyaanu ñu demuñu dëkku jàmbur fii lañ dëkk. dëgg la fii ñoo ko moom. te bu élection jotee. ba timis jot ba gars yi trier li nga xam ne fii ñoo ko moom. incha allah di soobee yàlla. man Moustapha Mbengue suma xarit la mhm. ñuy yàgg maa moom depuis 2006 ba tey mhm. mu ne ku baax ñuy ànd di def lu ne mais tey dem naa dema dem dem tey ba mu ne ma Pape Diop demal noor bi nga nekk candidature noor tey loolu la yàlla def tey ji ma nekk euh, candidature noor bokk ci ñi nga xam ne élire nañ ma pour ma war koo xëccoo mhm. ma ñaan yàlla yàlla suturaal ma ci may ma ci ndam waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa yoonu ndam ndaxte yoonu ndam nag dafa am li sax lu ci am mooy euh, kii ko moom suma xarit la mhm. sama gaañ la ñu defandoo lu bare bare bare bare tout le temps daf may woo mhm. tout le temps daf may conseil tout le temps dañuy am lu ñuy waxtaan maa ngi moom mu nekk bu baax mhm. ma leen di ñaanal ñun de duñ leen fi jéggi dem di jëli keneen yéenay sunu Al Jazeera yéenay sunu Sen TV yéenay sunu leneen ak leneen ak leneen ak leneen vraiment kontaan nañ trop ndax gis nañ tey suuf ba léegi ñun ak yéen la añoo leen sonn ngeen fu nekk wàcc nañ fa ndox yu taayee fu ne wàcc nañ fa amuñu dara luñ leen di fayee wallaahi bi ma ko woowee dana ma bul ma jox dërëm naa ci jàppate yàlla tax mhm. loolu moom moo tax vraiment kontaan nañ trop wallaahi wallaahi kontaan nañ trop